Euh, professeur Wele dafa am lu solo lu mu wax. Mhm. muy wàllu utilisation trois cent cinquante milliards yi. Mhm. Euh, yu mhm. président Macky Sall wax ne daf ko bëgg jàppale jeunes yi. Euh, déjà muy nekk xaalis bi xam ne xaalisu leb la. xaalis bi xam ne dañu ko askane woon ay yenn projet yu nekk ñun xanaa dara. yu nekk ñu dara si. moomuñ dara yoo xam ne dañu ko askane woon yenn projet yoo xam ne qui était déjà dans le PAP. muy le muy plan bi nga xam ne buy mm-hmm. opérationnaliser le PSE pour chaque quatre ans cinq ans euh, ñu war fa tibb foofu xaalis bi nga xam ne il était destiné à des projets de développement yi nga ñoom ñoo wax ne c'est prioritaire mm-hmm. foofu ñu war a bëgg puiser pour mën a jàppale xale yi mm-hmm. waxuñu waxu projet sax yu sérieux dëbb daaxee la waxuñu sax waxu projet sérieux waxu dañ koy échelonné sur trois ans la ñu wax année bi cent cinquante milliards dëwoon cent milliards gannaaw dëwoon cent milliards sur trois ans donc kon moom euh, man jàpp naa ni outil la kese pour jéem a ger ndaw yi ndax dafa mel ni kuy préparer euh, ay ay ay euh, yi nga xam ne. Mhm. moo xam local la moo xam législative la. Mhm. ndax soo ko déggee mi wax ko département yi département nga xam ni kon la chose va être vraiment politisée. donc mhm. man euh, quand parle d' li professeur wax dëgg la su ñu waxee waxu 350 milliards. daf ñu war a retarder parce que loolu ça pèse rien pour un état bi xam ne budget sax ëpp na milliards chaque année. su ñu waxee état wax dëgg yàlla amul solo et loolu tam c'est pas les bons yi ñu war a def peut loolu mooy andi laaj bi ñuy wax mooy alternative paradigmatique yi nga xam ne dama jàpp ne moo waroon nekk le cœur euh, du débat euh, léegi professeur mu ngi wax waxu agriculture exemple bu ndam lay jox mooy France euh, nga xam ne mooy bàjjanu Sénégal aujourd'hui l'agriculture française c'est une population de plus de 65 millions de Français ñi téye agriculture française bi 500 000 personnes lañu maanaam c' est pas pour cent de la population mhm. française mhm. mooy dundal France ba pare di exporter pour jéem a gagner ay marché bitim réew. Mhm. ñun aujourd'hui suñu agriculture. la population active. ñu ngi si agriculture di si di si di si di si cëppi cëppi 80 pour cent. Euh, pour benn secteur bi nga xam ne qui contribue qu'à hauteur de 17 pour pour cent entre 15 7 pour cent la di contribuer. dans le PIB. may wax ne les enjeux réels. Sénégal dafa mel ni dañ ko bàyyiwul xel ñu ngi waxu débat. Mhm. Euh, agriculture bi waxu transformation mais mbir bi weesu na foofu on est dans à l'ère bi nga xam ne à l'ère de de changement technologique yu extraordinaire. Mhm. à l'ère de l'IA. Mhm. maanaam fi ñu jëm nii instant yi. ce serait pas sérieux lépp 80 pour cent nit nekk ci ay suuf di bay. Hmm. pour dundal seen askan. Hmm. maanaam euh, moins 2 pour cent la population sénégalaise maanaam 0,01 sax. Hmm. ñoo war a toppatoo ay tool. avec l' intelligence artificielle. avec l' assistance technologique. Euh, ñoo war a mën a doxal lépp. donc aujourd'hui un sérieux foofu la war a xalaatee. on parle aujourd'hui de transformation ci secteur secondaire bi xam ne gis naa économistes yu bëri yoo xam ne il secteur secondaire parce que foofu moo am aujourd'hui les emplois réels su ñu mm. xoolee rapport yu ëpp solo yëpp dans les dans les agences de prospective yu xool adduna bi mm-hmm. les rapports maanaam fii war a am emploi mm-hmm. du secteur secondaire secteur primaire ak secondaire boo leen boolee mm-hmm. fii ba 30 ans yi ñëw ñu am euh, lu ëpp 25 pour cent ci emplois ils peuvent plus parce que les secteurs saturés xam ne la technologie dafa war a wàññi nit yi fa war a nekk. Mm-hmm. aujourd'hui plus on va avancer nit yi dañ fa war a wàññeeku maanaam d'autres niches vont se créer. Mm-hmm. d'autres choses vont avoir lieu mm-hmm. am na fenn fu ñu war a orienter xalaat yi. pour jéem a xool niche ñu war a exploiter par rapport à la technologie. donc aujourd'hui quand on de paradigme euh, sama sëñ man dama jàpp ni. li ñu war a tàmbalee mooy re-questionner. Euh, l'économie mm-hmm. Mm-hmm. l'économie est une discipline sociale mm-hmm. c'est vrai que am na ay faussaires yu bëri qui en ont une science elle n'a jamais été une science dafa dafa dafa dafa ab rek ay outils scientifiques des outils comme la statistique des outils surtout marginalistes yi ils avec seen ay dérivés ak beaucoup de mathématiques la xuur doomu aadama yi mais ce n'est pas une science c'est une discipline sociale bi nga dafa war a taxaw xool d'abord une société comprendre ko xool fan la toll. Mhm. lan la am. Mhm. fan la bëgg dem. ak naka ñu koy yóbbee mu egg mhm. foofu. dama ne exercice boobu. suñu intellectuel yu gën a bëri yoo xam ne dañoo tayal. Euh, utiliser seen xalaat ñoom. bañ a nekk dans le suivisme bi nga xam ne moom la mondialiste si teg ci àdduna bi. donc aujourd'hui euh, li jiitu. te mooy la cœur du problème te gis naa ne wax jooju. Euh, ñu ngi koy daw ñu bari kenn bëgg cee waxtaan. bëgg ñu débat bi quoi. c'est le débat de Hmm. même avec la crise de Covid ak lépp mais le hmm. problème il est d'abord monétaire hmm. mooy ñu ñu dugal ci benn ci benn canevas bi nga xam ne euh, y a des transformations euh, triples même au niveau monétaire lu tax ma ne triple d'abord euh, y a des échéances politiques ñu tënk ci monnaie exemple bu gën a gàtt mooy genre zone CEDEAO mhm. dañoo bëgg ñoom am monnaie unique bi xam depuis daaw ñu waxoon sax mhm. man waxoon naa bu yàgg ne du am mhm. ne woon naa du am gars yi ba di ma xas man leen du am 2021 du am 2022 du am muy éco boobu lu tax loolu mooy euh, dañ ko gëstu xool ko def projection yëpp xam ni mënul nekk maanaam du ni si du ci gagné pareeguñu en même temps dëkk yi xam ne ñu ngi nekk si projet monnaie unique CEDEAO ñu ngi tam si benn monnaie unique Afrique pour le continent bi nga xam boobu tamit 2021 bi la ñu waxoon la ñu pare pour mën a taxawal monnaie mhm. boobu en même temps aujourd'hui dafa mel ñu ngi bu doomu aadama yi wet régionalisation bi nga xam ne tënk ay dëkk yi xam ne ñëpp ay mhm. incapable lañu ñu bëgg boolee des incapables pour gën leen di mën a tënk mhm. dama ne débat bi warul warul féetewu foofu kese pendant ce temps là les dynamiques social

sociales. Euh, ñuy wax des CELS. Euh, euh, wala monnaie locale wala des monnaies régionales. Mm-hmm. lii nii. mënuñu ko ignorer ñun continent africain bu ñu bëggee wax waxu euh, territorialisation activité renforcement capacité ak waxu enjeu développement yi xam ne moo ñu moo bari moo ñu engagé mm-hmm. on pas ignorer la technologie sur la monnaie mm-hmm. aujourd'hui les monnaies virtuelles les monnaies numériques les monnaies mm-hmm. surtout cryptographiques dañoo commencé am benn ampleur bi xam ne dans une société ouverte on pas ignorer ces aspects là di wax waxu benn monnaie unique bi xam ne mm-hmm. ci ci si décennie bi dina jeex mm-hmm. ndax su may joxe exemple kese euh, échange yi doon def si dollar dollar aujourd'hui mooy la monnaie bu mm-hmm. ëpp doole ci àdduna bi euh, te elle est encore pour longtemps rek mooy la monnaie bi fi ëpp doole su ma joxee xool ñaar dëkk kese ku mel ni Russie ak Chine seen ay échange ñaar seen ay échange commerciaux Euh, bu yàgg ba presque quatre produits adduna bi on le on le vendait en dollars. Mhm. pétrole ak lépp dollar mooy la monnaie mooy la devise internationale. Mhm. même de manière officieuse. malgré que accord de Bretton Woods daanu na. Mhm. Euh, accord de yi am na. mais ba tey le dollar continue de jouer ce rôle mais aujourd'hui dafa am dëkk yoo xam ñoo commercer sans utiliser le dollar. les BRICS par exemple lu nekk di def. ñoom Russie ak ñoom Chine ak et cetera Brésil et cetera. am ay impact yu ngand mhm. ci système ñun monétaire bu ñu nekk ñun ndax ñun buy fàttali système yóbbaale la nekk système genn la mhm. am na ñun dañoo bootu ci ginnaaw euro mhm. euro actuellement mu ngi waaj a imploser en matière monétaire aujourd'hui kuy suivre bu baax les agrégats surtout ak ak les les yooyu gis ni Italie mu ngi au bord de mu gis niveau de dette fi nga xam ne fa la Grèce nekkoon balaa muy daanu en euh, dëkk européens yi les PIGS muy dëkk yi xam ne dañoo sonn ay Portugal ak Espagne dëkk yi dañoo sonn wax dëgg yàlla la monnaie unique am na ñu muy arrangé ñu mel ni ñoom Allemagne ak les pays du nord mhm. am na ñu muy fitnaal leen toroxal mooy les pays du sud qui n'ont plus de compétitivité dëkk boobu nag nga xam ne nga xam mooy kilifa ñun suñu zone bi mhm. espace boobu bu amee difficulté mhm. am ay jafe-jafe ñun fa lañ jëm donc aujourd'hui le cœur de notre problème nous sommes dans une économie monétaire économie bi nga xam ne mooy le centre mooy l'alpha et l'oméga toute l'économie ñun on doit d'abord parler à cette monnaie là ba pare revoir euh, suñu économie bi ñuy utiliser il y xam ne Euh, mu ngi jël yenn aspect de l'économie yi nga xam ne qui sont plus la concurrence dans le monde entier man je suis dama bokk si nga xam ne man dama def thèse sur l'économie islamique donc l'économie islamique yàlla bi ñu bind wàcc ñu si kaw suuf daf ñu jox benn projet de vie mmh. euh, ci àdduna mmh. yàlla bàyyi ñu kese pour ñu ñëw ne allah akbar allah akbar daal si kaw si biir alxuraan mmh. daf ñu jox benn projet de société wax ñu lan mooy la vision économique de l'islam dans donc l'économie islamique mooy alternative bi ñu jëm bu ñu ko ignoré àdduna bi mënul tegu ci yoon ndax le système capitaliste est en crise de manière extraordinaire le système communiste moom dee na pare kay waxtu ko jublootuñu kese la profit ak l'intérêt jël doomu aadama def ko benn outil kese comme machine ak nangam dafa jël doomu aadama replacer ko au centre de la vie économique xam ne doomu aadama mooy l'alpha et l'oméga de la vie sur terre économie boobu instant yi kenn ko fiy def muy l'économie islamique te économie boobu nag dama jàpp ne euh, war nañ ci tàmbali ndax y'a beaucoup travaux man sa bopp instant yi maa ngi ciy def ay travaux ak yenn collègues yi xam ne ñu ngi koy ñu ngi tënk quelle est la théorie islamique ci wàllu monnaie ci wàllu budget ci wàllu fiscalité maanaam lii travaux yi yàgg na ba ñoom ñoom Chapra bi y a beaucoup de d'auteurs yoo xam ne qui ont travaillé mm-hmm. donc aujourd'hui mun ñu ko alternative mm-hmm. dans un pays bu mel ni Sénégal mm-hmm. mu ngi tudd Seydina Mouhammad sallallahu sur la monnaie ak sur la gestion politique de la cité maanaam lii mooy le cœur du problème bi nga il faut africains yi am sañ-sañ ak fit jéem ko interroger parce que li nga Mouhammad tubaab yi seen problème bu ñu am ci l'islam sooy gis tubaab bi di wax islam islam tubaab bi amuñu problème ak diine islam en tant que tel maanaam allah kubar du problème si tubaab bi bu bëggee sax ñu tabaxal la jumaa financé la may la ko. Mhm. pour nga julli tubaab bi ñoo colonisé ay Algérie ak ay Maroc ak tëgg yëpp ñoo xam ne colonisé. tabax jumaa du seen problème. bàyyi la nga julli jàpp sa jàpp du seen problème. nga woor sa koor wala dem màq vraiment du seen problème. mais l'islam politique. la vision politique de l'islam ak l'organisation économique. Ah de l'islam mm-hmm. ñaar yi méngoowul ak système caay-caay bi tubaab bi tëral bi xam ne système la bu tegu ci riba. Mm-hmm. tegu ci ci ci naxama ndaxee mbaay. Mm-hmm. tegu si li nga xam ne waxu spéculation kese li islam moom njëkk a dàq. moo tax tubaab yi comme ñoom ak islam mun ñu fi nekkandoo ci kaw suuf kenn écrasé keneen euh, peut-être moo taxoon Huntington doon wax de choc of civilisation. waaw civilisation ils vont être en choc. Mhm. Euh, islam dafa ko jàppoon civilisation bi xam ne dafa nekk en choc devant la civilisation occidentale. la mhm. civilisation chinoise toutes ces civilisations là. Mhm. à la fin kenn kese moo nar a taxaw. cool nag mooy kenn kooku kan la. donc euh, man gëm naa ni. Ah, Cheikh Sir wax na ko. Ah. conférence de Yalta. effectivement quand a le Coran. ne fekk livre bi mi ngi. effectivement dootu dootuñu dominer le monde. wallaahi mmh. wallaahi dëgg la justement mmh. li professeur doon wax léegi xam naa ni kooku moom ça nécessite beneen débat. Mmh. boo xam ne faaw ñu gën koo xootal maanaam la vision islamique de l' économie. ak la vision politique de l' islam. yooyu